Serigne Ndiaye ma lay nuyu bu baax a baax a baax tey nga ñëw ci daje bi nga xamante ne association des lutteurs en activité moo ko woote ci njiital ga di Gris Bordeaux ma jàpp ne lépp loo xamante ne Gris woote na ko rek sans autant que association bi Serigne njaay doo mu nga fa tey bëggoon naa xam lan ma waral teewaay bi. waaw mais teewaay bi teewaay leen rek teewaay ñaxtu teewaay ñaxtu parce que bu méttee si ñun si ñëpp ñu ñoo xam ne dañoo tàmm di compétir xaaruñu combat xaaruñu dara tàmm suñu bopp. s'avancer si suñu ay propres moyens maanaam di entraîné dugg si àll bi rañee ñëw gérer suñu bopp gérer suñu njaboot gérer ñeneen boobu nga toog dix mois yoo xamante ne dafoo dara rawatina nga jël avance jàmbur. comprendre tax ma ne gars loolu dafay xaw a difficile quoi vraiment loolu kese rek bëgg gars yi libéré wu si jàmm sàmm rek parce que saa yi ñoo raw prisonnier yi vraiment ñoo raw prisonnier parce que entraîné dèjà saali bi ñu ko tëjee tëj géej fan lañ jëm gars dañoo war a libérer gars yi si jamono sànq gars teg ay mesures barrières gars yi dund ak feebar bi. su bi bu jotee allah kulli aal da ngay dem muy corona rey la muy leneen rey la n'est-ce pas. mais da ngay xëy nga dem uti ñëw dundal si njaboot imagine nga xëy sa war a jox sa yaay juróom dërëm amoo ko. wala booy yi si gaal ji dem ay booy ci làmb bi. te ñoom si bi dañ ci tegoon ay tànk dem nañ la moo tax ñu dem parce que xamuñu fu ñu jëm. mais bu fekkoon ñu ngi compétir da ngay seen vie naaj sans problème kon duñu bouger mais toog gérer. mais tamit bokk nga ci ñi nga xamante ne yéen a gën a impacté ci yëf yi parce que sa combat sa ko sim daanaka heure bi bu fekkuloon ak feebar bi ba tey bëri ngeen ba ku ne tàqalikoo euh, préparation bi nu muy demee fi mu toll nii day mel ni yaa ngi avance jàmbur yaa ngi préparé combat te xamoo app bi kañ. non man je suis un athlète je m'entraîne du jour au jour mais day xaw a métti si financièrement ak ci loolu lay xaw a métti rek. Hmm. comprendre munu gars yi mu ñu leen jàppale jusqu'au bout jusqu'au bout day xaw a parce que ñëpp lay méttee xam mais damay sant ñi may jàppale bu baax a baax a baax parce que su ma sama père Yves Diaw sama papa Tafa Gueye ak gars yi may jàppale bu baax ama seen fay vraiment sama papa parce que boobu léegi tamit lu ma waxee rek ñu suul lu ma leen nii ñu dagg ñoom ñoo tax affaire wax dëgg yàlla sama côté sant yàlla quoi vraiment. Mhm. maa ngi jaajëfal bu baax a baax. non ma jox <laughs> jaajëf Serigne Ndiaye